jàmm. ndogu ngeen ba suur. kan moo leen jox ndogu. madame madame Sibi. lan ngeen koy wax na ñu koy sant di ko gërëm. Hmm? pël yi mu defar jàkk ji. waaw madame Sibi loo koy wax mu defar jàkk ji. waaw ah madame Sibi booy bi nee na nga defar jàkk ji yow loo koy wax. ah mu jàpp si jàkk ji mu jàpp si jàkk ji. jumaa ji rek jumaa ji. <laughs> waaw madam mu ngi leen di nuyu waa dar, waa xaar yàlla waa xaar yàlla maa ngi leen di jéggalu di baalu ak nee mu ngi leen di jéggalu di leen di baalu ak ci weeru koor bi ñu nekk ci weeru koor gi ñu nekk namoon naa leen comme ni ngeen ma nammee nee na namoon na leen comme ni ngeen ko nammee soo leen ma nammee benn namm naa leen fukk nee na soo ko nammee benn namm na leen fukk ah di jiital nag si baalu ak sunu papa yi nga xam ne ñoo fi toog nee na baalu ak bi da koy jiital ci sunu papa yi fi toog di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. koor bi nga xam ne ñu ngi koy woor. koor gi xam ne ñu ngi koy woor. lépp luñ si ñaan. lépp luñ ci ñaan. yàlla may ñu ko. yàlla may ñu ko. di ñaan di ko ñaani tamit. di ko ñaanit li nga xam ne. li nga xamante ne moom ngeen bëgg. moom lañ bëgg. yàlla war ko jaarale sama loxo. yàlla war koo jaarale ci ay loxo. yàlla nañu ko yàlla may. yàlla nañu ko yàlla may. mu sedd guy si yéen. mu sedd guy ci ñun ñëpp. muy si tali yi. muy ci tali muy si ndox yi. muy ci ndox yi. ak lépp li nga xam ne mébét nañ ko. ak lépp loo xamante ne nii mébét nañ ko. sunu papa ji nga xam ne Touré. sunu papa bi xam ne moo fi toog nii. muy Babacar Dramé bi nga xam ne otoom lay taal. bi xam ne otoom lay taal. si def carburant. di ci def carburant boppam. Ah, di jigéen ñi di leen di wàllu yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay yal na ñu toog yal na ñu toog comme ni mu ko bëggee comme ni mu ko bëggee ñu am fi poste de santé ñu am fi poste de santé am sax ambulance boo xam ne am ah, ne dina wàññi coono jigéen ñi dina wàññi coono jigéen ñi Assane dégg naa li nga wax. asan Ndour nee na dégg na li nga wax. ndaxte quartier bi wane na ko. ndax quartier bi wane na ko. wane nañ ko si yar. wane nañ ko ci yar. wane nañ ko si teggin. wane nañ ko ci teggin. mooy ngeen ni ñu toogee nii rek. mooy ni ñu toogee nii. da bootu. dañoo bootu. si gannaaw. ci ginnaaw jigéen ñi jigéen ñi. may profito nag. muy profito. di nuyu. di nuyu. sunu yaay Ndey Touré. sunu yaay Ndey Touré. di nuyu Ayu. di nuyu Ayu Seen. di nuyu Aram. di nuyu Aram di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fi lim rek juum. nee na di nuyu képp koo xamante ne bàyyi nga si sa yitte ñëw toog fi nuyu na la ndax ku lim da ngay juum. di leen gërëm ndax yéen jeunesse bi. di gërëm jeunesse bi yëpp. muy yow Moussa. muy man Moussa. muy Assane muy Assane. mais itam ñi nga xam ne ñooy ànd man. moo xam ne ñoo ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ànd ak moom. ci jeunesse bi sol seen dàll. di sol seen dàll. ñëw di waxtaan ak yéen. ñëw di waxtaan ak ñun ba xam ne tey. ba xam ne tey seen mbébét yenn yi nga xam ne yëgoon nañ ko sunu mbébét yi xam ne jot na koo yëg liñ si mënoon saafara saafara nañ ko lim ci mënoon a saafara yenn yi def na ko ni ma ko waxee sànq waaye comme ni ma ko waxee sànq lépp du ma xaar ba élection ñëw nee du xaar ba élection di ñëw muy def li ngeen wax nee na dégg na li ñu wax lépp lu ñu si mën a def lépp lu ñu si mën a def fii la élection di ñëw soobee yàlla dinañ ndax loolu ñu président sant balaa élection di ñëw loolu dinañ ko def ndax loolu la ñu président sant muy monsieur Macky Sall foofu nag. may woo jeunesse bi. muy woo jeunesse bi. ndaxte doo am président bu jeune ni moom. ndax doo am président boo xamante ne jeune la comme yéen. liggéeyal leen. liggéeyal leen ba ñëpp teg xam ne te ñëpp teg ni si bët. ñëpp teg ci bët yeneen réew di ñëw Sénégal. yeneen réew di ñëw Sénégal di ñëw di Sénégal. di copier Sénégal. ngeen di topp ñoo xam ne. ngeen di topp ñoo xam te. saaga saaga. wax lu ñaaw wax lu ñaaw. ba di wax lu rëy loo xam ne. ba di na ko ñu rey. Mm. sa yaay juriwaat. ba di wax kàddu gu rëy goo xam ne ñu ngi naan kuy ku ku ñu doon sa ay juraat juraat loolu moom nee loolu moom musiba yu mel noonu musiba yooyu ñu koy soog a dégg Sénégal ñu koy doog a dégg Sénégal moo tax si weeru koor bi ñun suñu koor yëpp daje kooru catholique ak kooru sëriñ yi nee na yàlla may nañu kooru chrétien yi ak kooru jullit yëpp daje nañu yàlla may tamit ñëpp umandoo koor yàlla def ñëpp umandoo koor lépp luñ si ñaan nee na ñaan yuñ ci ñaan ci koor yaakaar yàlla dina ko dam yala na yàlla boole lépp te muy lan mu nekk jàmm muy jàmm ci réew jàmm la xam jàmm la ñu xam xamuñu fitna xamuñu fitna te yàlla bu fi fitna wàcc te yàlla bu fi fitna wàcc ndaxte pétrole ak gaz bii nee na ndax pétrole ak gaz bi dañu ñaan yàlla la ñuy ñaan yàlla mu wàcc si si jàmm mu wàcc si si jàmm jëriñ sénégalais yi jëriñ sénégalais yi xëy na xaalis biy jóge foofu du bari xaalis biy jóge foofu xëy na waaye lépp li nga xam ne mi ngi si gannaaw pétrole ak gaz waaye lépp loo xamante ne mu ngi ci ginnaaw pétrole ak gaz yal nañu yàlla may yal nañu yàlla may comme ni mu sànq moom mi nga xam ne nee na ñu dañu am métier. nee na dañoo am métier. ñu gën a kawel seen métier. ñu gën a kawel seen i ñeneen am métier. ñeneen am métier. ne leen nañ gëm seen bopp. nee na ngeen gëm seen bopp ndaxte Sénégal bii. ndax senegal bii keneen du ñu ko defaral. keneen du ñu ko defaral ñun ñoo koy defaral suñu bopp ñoo koy donc defar nag.